wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin mbokki jullit yi noo ngi dellu di leen nuyuwaat di leen ziyaarawaat ngeen gi ziyaara di ñëw ci itam ci jotaay biñ baaxoo am ak bis bu ne ci waxtu wi di leen nuyu yéen ñëpp bu baax a baax a baax rawatina mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi bàyyi xel jotaay bii te itam ñi nga xam ni ñi ngi doon indi ay laaj ci suuf ndéem soob na yàlla ci mujjug waxtaan wi danañ leen ci tontu danañ leen ci leeral itam waaye itam koo xam ni wax nañ ci loo xam ni xamu ko wala yaakaar wala njortu na ko leerlu ndax alquran dafa waxoon ni fasaloo ahla dikri in kuntum la la taalamuun yéen ñi xamul laaj leen ñi xam tey nag ñu ngi ñëw ci ñetteelu émission bi ñu jëloon benn mawdoox bu ñuy wax muy kalimatu la ilaha illallah baatub laa ilaha illallah ni muy jëriñe nit ki ak nit ki bu ko saxalee ak ki nga xam ni mu ngi ci di ko sikkar fu mu toll ndax day baat boo xam ni dara dara da koo ëpp ci yiw dara dara da koo ëpp ci ngëneel lu nit mën a werdu ak lu nit mën a saxoo di ko tudd tur tudd yàlla moo ci ëpp solo loolu sax li la koy xamal mooy Sëriñ Tuubaa waxoon na ci lenn ci téeréem ni moytu leen di noonoo kiy génne ci gémmiñam baatub laa ilaha illallah demoon ni fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallahu mu ni itam mbooleem lu nit di tudd tudd yàlla moo ci ëpp solo mbooleem lu nit di bëril bëril tudd yàlla moo ci ëpp solo mbooleem lu ab taalibe di saxoo tudd yàlla moo ci solo te saxoo tudd yàlla googu mooy laa ilaha illa moo taxoon mu ni secret bi ne ci tudd yàlla danaa ko wax ndax nit ñi jariñu ci wax ji itam dama koy wax ca kaw duma ko wax ci suuf dama koy wax ca kaw duma ko wax ci yalu dama koy biral ñëpp xam ko te itam wax gi may wax njariñal tudd yàlla ak li nekk ci tudd yàlla faalewuma ci ku may weddi loolu la waxoon ni amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaanal muridu yuksiru qad qultu saalika bila israari wala ubaali bi zawil inkaari nee na tudd yàlla mbooleem lu ab taalibe def moo ëpp solo lépp te itam njariñ li moom dama koy wax xamal leen ni leen mbooleem kuy ab jullit tudd yàlla moo gën leneen loo mën a wax lu dul tudd yàlla tudd yàlla ko gën daani wax ji itam danaa ko wax ngir ñëpp xam ko te duma ci faale ku ma weddi daani itam wa kullu man sa'alani fali jawaab ahla wala tujaadiloo qablal ahlal kitaab wa kullu man sa'alani fali jawaab qabla wala tujaadiloo ahlal kitaab képp koo xamee ni itam laaj nga ma sama tontu mooy njëkk wala tujaadiloo nga xam ni ñaar fukki isib yu mujj yi ci la ci alquran juróom fukki isib la ñeen fukki isib yi ci ñaar fukki isib yi mujj yi njëlbeenu isib ba fala nekk mooy wala zikrullahi akbar lay wax naa njëkk walaatu jaadiloo wala zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaoon li alquran waxoon foofu ni tudd yàlla moo gën a màgg lépp lépp lu ab jaam di def tudd yàlla moo ci gën a màgg kon loolu war na bu baax a baax taalibe bi di ko saxal ci xolam te di ko teewlu te itam jamono ji muy tudd suñu borom subhanahu wa taala mu yore laab ba tey tudd yàlla njariñ li ci ne ku ko xamoon ci ngay dëkk doo nangu jël sa jenn waxtu di ko def ci lu dul tudd yàlla ndax bénéfice bi mu am ëllëg yomal xiyaam benn bénéfice amu ko te itam ku weddi wax jooju sëriñ bi nee na bay boo ngeen jàppe ko dox boo xam ne xelluwut ndax ku amatum xel moom ma tudd déglu bañ na ko ba nit buy laaj nit boromam xel lay laaj kon koo xam ne wedd na ni tudd yàlla dara dara ëpp dara ëpp na ko njariñ kooku boy boo ngeen jàppe ko dof boo xam ni yéewuwut moo tax mu ne wa qultu man taraka zikrallahi li zikri xayrihi fa xumrullahi daat ni tudd yàlla jaam farlu sax naka la koy sàggane naka ngay sàgganee ki nga xam ni mooy ki la bind naka ngay sàgganee ki nga xam ni mooy ki moom naka ngay sàggane ki nga xam ni mooy ki sos naka ngay sàggane ki nga xam ni noo moo la ko melal te mooy borom bi subhaanahu wa taala naka ngay sàggane di tudd meloom bu màgg bi naka ngay sàggane di tudd meloom yu màgg yi ci jamono june fa kayfa yansa aw yu xaafilul wara dikra allazi xalaqahum wa sawwara nee na naka ngay sàggane di bañ a tudd yàlla di bañ a tudd ki nga xam ni melo yu mag yépp mooy moo melo gis ci nit rek moo ko moo ko ni melal lu am lu ne mooma lu dul jëmmam lu ne jëfam la lu dul moom lu ne amoon na amul te jëmmula la joo xam ni du jëmm junni léng sun borom subhanahu wa la day jëmmu joo xam ni lim bind lépp dafa wuuteeg moom nga xam ni dara yema wuuteeg moom kon bàkk ko ak di ko kañ doomu aadama bi fu mu toll da koo war di sax di ko saxoo ndax pas-pasu tawxiid boo xam ne day ne ci xolu nit ki dara da ko ëpp tuyaaba Sëriñ Tuubaa waxoon na ni biir bàmmeel day nit ki mënu cee jariñu lu dul tudd yàlla ni tudd yàlla ni mu ciy jariñe doomu aadama lu dul tudd yàlla mënu laa jariñe noonu dem ba wax ni wa afdalul ulumi lil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaqi mbooleem loo xam ni nit a nga koy saxoo rek tudd yàlla moo ci gën a màgg tudd yàlla moo ci gën a kawe tudd yàlla moo ci gën a sell daan ni mbooleem lu nit di wut rek ci xam-xam na xam ni xam-xamu wéetal yàlla moo ci solo loolu itam war na bu baax a baax nit ñi sax ci te di ko bàyyi xel ci jamono ju ne ndax sallallahu alayhi wa moo waxoon ni ma min ahadin yashhadu anna laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah saadiqan min qalbihi illaa xaramahu llahu ala nnaar nee na woon kenn ci yéen day du seede ni benn buur amul bu dul yàlla du seede ni Muhammad yàllaa ko yónni te muy dëgg ci xolam lu lañ koo araamal ci jëmmam sawara kon tudd yàlla dara dara ëpp ko solo te loolu tudd yàlla dong dong nit ki itam bu dee dafa bëgg fu mu toll aajoom di faju ay mbiram di jub na saxoo tudd yàlla ndax tudd yàlla dara da koo gënt kawe moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon ki ko saxoo daal sun borom araamal na ci jëmmam euh, kërug safaan ba ba la laa ilaha illa allahu bi izzatika wa qudratika laa ilaha illa allahu bi wa qudratika laa ilaha illa allahu farrij bi rahmatika kulla yawmin sabxiina maratan koo xam ni itam mi saxal loolu ma wax léegi bis bu ne juróom-ñaar fukki yoon koo xam ni mi ngi koy saxal bis bu ne juróom yoon suñ borom subhanahu wa la dana ko fajal mbooleem loo xam ni ay aajoom la dana ko fajal itam mbooleem loo xam ni ay itteem la te itam mboolem njàqare wum amoon suñ borom dana ko ko defal mbégte ak yërmande ak xéewal ba tey itam ku ko saxoo suñ borom dana la musal suñ borom dana wuñ wuññi sa mboolem say njàqare mboolem koo xam ni saxoo nga ko daal suñ borom dana la musal suñ borom dana wuñ wuññi sa njàqare ba dara dara lu lay mën a lor du am te itam sa dund gi yëpp mën naa doon mbégte mu ànd ak tawféex ndax comme que bàkk suñ borom rek ak di ko kañ te ci xer rek nit ki boo ko doon bàkk ak di ko kañ ci doomu aadama yi nii day am yéene yi di la jox rawatina yàlla mi nga xam ni ku am ku ne moo la amal ku xam ku ne moo la xamal ku mën ku ne moo la mënal kon kooku boo ko dee bàkk ak di ko kañ dara dafa yemawut ak jooju jëf mënees na ni jëf yëpp rek wala zikkar yëpp rek looloo cëpp solo boo déggee nag ñu ni tur yàlla masalan ñu ni tur yàlla yaa alimu wala tur yàlla yaa razaqu loolu ay melo yoo xam ni dafa jegoo ci suñu borom subhanahu wa taala waaye tur yàlla moom bi tax ñu naan tur yàlla dëgg-dëgg mooy allahu loolu mooy tur yàlla yeneen yi ci des ay melo yoo xam ni day taq ci jëmmi suñu borom ji ni wenn wenn wenn we lépp lim bind du koo xam ne da cee meloo dara ndax buñ nee lu lu ne buñ nee tur yooyu day ay day aw melo ci moom kii dégg bu jàpp ni day aw melo wu taq ci jëmmam ndax suñu borom du jëmm ju ni joo xam ni dara day taq ca moom ndax euh, buñ nee lim bind lépp wuute na ak moom te ñu ni jëmm ju ni léng la jëmm ju ni léng foo ko fekk aw melo day taq ca moom moo xam gudd la moo xam njool la moo xam gàtt moo xam moo xam njool moo xam xees moo xam ñuul moo xam itam loo xam la te nga xam ko ci sa biir xol loolu mooy taq ci melo suñ borom nag yooyu yëpp wala nga nekk ci bërëb wala nga nekk ci jamono am foo féete suñ borom moo bind jamono bind bërëb bind makkaan lépp suñ borom a ko bind te it bokkut ci wenn xeet te itam dafa doon koo xam ni amul wenn melo wuy taq ca moom ndax du jëmm ju ni léng aw melo bala moo mën a taq ci nit rek day fekk jëm ju ni léng joo xam ne da nga koy làmb daj ko xool ko gis ko melo doo ko taq ca moom kon kooku wuute na ak lim bind lépp sëñ Tuubaa sax waxoon na ko daan ni fa kullu ma yaxtaru bil baali abat fa bi xilaafi zaaka rabbuna al ahad lépp lu rot ci xelum doomu aadama sun borom subhanahu wa taala wuute na ak loolu daa di wax ni daa di wax ni fa kullu ma siwaahu doomu aadama bi itam na bàyyi xel ni lu dul jëmmi sun borom rek jëfi sun boroma kon kooku lañ ñëw ci di ko bakk ak di ko kañ di ko bakk ak di ko kañ mooy di ko xamal ni ko benn buur amul budul yow benn buur amul budul yow te gëm nañ ni Muhammad yaay ki ko yónni te mboolem sa kàttan ak sa man-man ci la nit ñi jëfandikoo ci la nit ñi mane ci la nit ñi sañe ndax yow rek yaay ki am kàttan yow rek yaay ki man lépp yow rek yaay ki sañ lépp te itam sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni fa inna allaha qad arama ala nnaari man qaala laa ilaha illa allahu yabtaxi bi zalika wajhillaahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni sun borom araamal na ci sawara ki nga xam ni day wax baatub laa ilaha illallah mu wax ni sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni maa ala al ardi ahadun yaqulu laa ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi illa kufirat anhu xataayaahu walaw kaanat misla sabadil zabadil bahri yonent bi wax na ni déet kenn ci kaw suuf di wax laa ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al ali ba sun borom subhanahu wa dafa far ay ñaawteefam donte ay ñaawteefam dafa toll ni duusi géej gi sun borom subhanahu wa day far ay ñaawteefam kooku nga xam ni day wax loolu di wax laa ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim kon foofu la ñuy yem ak yéen ngeen xam ni njariñal tudd yàlla moom mënees na ni lu nit ki wut njariñ rek ëllëg yemal xiyaam laa ilaha illallah moo ci ëpp njariñ moom la nit ki war a taqoo ci jamono ju ne ak waxtu wu ne mbooleem koo xam ni yéen a ñuy bàyyi xel ba tey ñu ngi leen di fàttali ni leen kooku doon laaj laaj bi naan ndax mënees na ko bindulu wala mënees na ko bind yaakaar naa Serigne Babacar la tudd loolu wax dëgg yàlla bu amee ku laab koo xam ni mën na ko ko bindal rek dana baax ki koy bind daal la ci gën mooy mu laab ndax suñu borom subhanahu wa taala mbooleem loo xam ni nit a ngi ci jariñu ci ay waxam mënees na ni sax alquran ji wax yàlla la waaye waxam ji dëgg-dëgg ni nit ki umpalee jëmmam ji na la ko umpalee waaye leeruk alquran ji ci la nit ki mën di jariñoo njariñ lu ama am solo ndax ni ma ko waxee woon ni ma farratna fil kitaab min shay'in alquran moom daa bàyyiwut dara njariñ lépp a ngi ci te itam ki nga xam ni mën na ko bind mën na koo bind waaye ku ko munta bind itam mën naa wut ku ko ko bindal te itam ka ko koy bindal mu wax ko ni ko wax ma loo ko mën a binde mu wax ko ko mu bindal ko loola bu dee itam dani ko seetal loo ma jox itam na seet lu sedd xolam mu jox ko ko ndax itam ka koy bind lu xolam gën a sedd rek nit ki gën cee mën a jariñu wasalaatu wasalaam